waaw nekkoon na match boo xam ñëpp gis nañ ni amoon na nit amoon na public neexoon na trop euh, li déplorable mooy match boo xamante ni àggul si terme parce que arbitre bi si benn action arbitre de touche sifflé na corner moom mu ne penalty la peut-être moom moo xam lu tax mu def ko comme ni ma koy faral di waxee rek contre Casa sifflé nañu penalty boo xamante ni ñëpp gis nañ li si am euh, dama jàpp ni kooku dafa juumoon kii itam damay jàpp ni dafa juum juum mën na indi jaxasoo comme tey ji euh, may ñaan rek ni euh, comme ñun buñ defee lu bon si suñu métier bu ñu amee ñaar wala ñett defet dañ ñuy sanctionné sanctionné bi mooy dàq si li nga xam mooy sa gagne-pain parce que amoo beneen métier ki nga xam ne nag beneen métier la am moom muy bi parce que gis nañ ni arbitre du Sénégal yëpp même s'ils ont des arbitres FIFA contrairement en Europe parce qu'en Europe les arbitres FIFA dès qu'ils sont arbitres FIFA parce que le métier ne aujourd'hui peut-être en Afrique on les paye loo xamante ni dina leen permettre ñu toog seen kër mais bu ñu demee kon nag ba ñëw di jël di àtte liggéeyu jàmbur boo xamante ni mën nañ si dàq kooku te ñoom dàq di leen si fekk war nañ xoolaat bu baax ñu koy defee parce que ñun ay entraîneur lañu tey bu ñu ñàkkee wala suba ñu ñàkk mën nañu dàq moom bu defee erreur tey dara amul suba tey liggéey kon ba nga xam ne kon bu ñuy def ay sanction nañ koy xool li may faral di wax rek euh, comme contre Casa penalty am na amul arbitre bi juum na tey jii mën naa ni juum na wala juumul peut-être daan xoolaat vidéo yi ba xam si dara mais penalty damay jàpp ni tey bu doon yoon tey tey buñ si sanctionné nit tey si action si penalty mooy peine maximale boo xam moom nga sanctionné nit boo doon tey si loi sax perpétuité kon tey jii loolu dafa nekk loo xam dafa war a leer nañ pour nga mën ko siffler mais siffler penalty boo xamante ni arbitre tous désigné na corner euh, dañ koy ñaawlu violence nag ak fu mu mënti jógee bu jugee si man di entraîneur di jugee si euh, joueur wala jugee si public dañ koy ñaawlu parce que soxla soxlawul loolu mais bu ñu bëggee spectacle bañ lii di am il faut aussi ñi nga xam ñooy atte ñuy faral di waxtaan ak ñoom euh, pour ñuy atte dëgg ba nga xam te ni doom parce que toujours ñuy wax si yi wala nangam mais lu am rek am na lu tax mais tey ñëpp xam na ni jaxasoo bi am penalty bi arbitre sifflé am na amul su amul jàpp naa ni dafa juum doomu aadama la su amee aussi Pikine mérité na kon penalty moom parce que nekkoon na Thank you.